sama gars yi mun nañ ni euh, kuy ut ku ñàkk jom ba tase kii di euh, Soxna Bator yaakaar naa mun ngaa wàññeeku te xam ne dootu gisati ku raw kii di Soxna Bator si àdduna bi ndax euh, fase nañ la pour nga génn si kër gi yaakaar naa génnagoo si gaale bi toogaat fa tamit euh, di euh, manifester si li nga xamante ne moo nekk ay mbirum jàmbur comme lii di xew code bi mun nañ ni xew code bi bokk na si priorité yi ki nga xamante ne moo nekk Soxna Batoor te yaakaar naa chaque jour mu ngi siy jëlee ay gàcce te chaque jour mu ngi siy jëlee ay nakarlu te gën a ñàkk jom nag di gën a dem moo taxit kii di lay maarloo nee na pare na si moom te amatul ay responsabilité yi nga xamante ne moom lay jël contre kii di Soxna Bator moo tax it ba bii gi ñëwee di ko expliquer que ni Soxna Bator moo ngi déborder suuf nee na ko carrément Soxna Bator def leen ko leen neex en tout cas man génn naa si yaay loxam mais mun nañ nag Marlo lu mu réagir foofu noonu c'est pas normal ndax ba commissaire ñëwoon si gàll ba leeraloon na ko leer bu naññi naññi naññi ne ko na nga saytu ba sa famille bu ko bu si kenn laal Soxna Bator ndax mun nañ koo gaañ ci euh, soxna Batoor comme moom mu ngi si kër gi mun nañu say responsabilité lay nekk te tamit boobaa di nga wuy ji yoon te yoon mun na laa sonal trop trop moo tax Marlo mënoon na contrôler foofu na situation bi dem euh, jël kii di soxna Batoor comme que moom nee na soxna Batoor daa bëgg a baal ak kii di Marlo yaakaar naa su ko ne woon toogal dina toog te euh, du si jéem ut leen beneen baat bu mu si teg di Marlo daw na foofu responsabilité am te mën nañu mer moo ko jàpp sax ba ba mu jéppi soxna Bator mais actuellement nii su deful fair play dina am problème ndax famille yëpp contre euh, soxna Bator mën nañ koo gaañ te boobalee Marlo mi nga xamante ne moo nekk si tetu gàlle bi moo nekk borom kër gi moom la ñu indil problème ndax moom moo waral problème bi yëpp moom moo ko fase te tamit euh, mën nañu soxna Bator jigéen la war naa war naa doxan comme euh, góor nu muy doxalee si kaw jigéen ba nga xam ba nga xam te kii di soxna Batoor dina génn si gaale bi sans mu am fa moindre problème moo tax sama gars yi kii di àll àll defal nànk waaw bul topp sa xool na nga def nànk si kii di soxna Batoor sinon di nga ko gaañ trop jaa ngeen jëf sama gars yi damaa xaw a soñ nag moo tax vidéo bi mooy loolu mais na ngeen aimé partager